jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen dox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci fans yi su mu nee jàmmaarloo xel dem ci ñi nga xamante ni ñooy dugg ci digg géew bi tey nag ma dalal fi xale boo xamante ni nii usine technique lañ koy wax moo ngi nekk fee ci euh, écrit bi nga xamante ni mooy. daaru gëm sa bopp daaru gëm sa bopp fee ci jàmm gën tey ma dalal ko fii ñu bëgg waxtaan mooy li may wax rek euh, wasaare moom nday seex lañ yaakaar na lay tëddee ndax dañ fi invité ay champion di fi invité ñoom te ay mbëri ndaw lañ di fi invité koo xamante nii mosagul bëree su mu nee mosagul bëree arène bi mu yegsee fi Dakar arène nationale amagoo fa combat Iba maa gis ngeen mbokk yi amagul combat ñu dalal ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom li nga xamante ni nii moom la bëgg def ci làmb wala bëgg waxtaan ak moom li nga xamante ni mooy kay ma bàyyi ko mu nuyoo ñëwal waxtaan wi Izine nuyu naa la maa ngi lay fay di nuyu ñëpp nuyu ki ma àndal Ousseynou Mm-hmm. ak gaa yëpp daal maa leen di nuyu bu baax a baax. Euh, lan moo la dugal ci làmb. ah man nag sama mag di doon bëri ma doon mm-hmm. ànd ak moom di seetaan. tey baax loolu moo ma dugal ci làmb. sa mag doon bëri nga bëgg dugg ci làmb. man maa doon kii saako bi tey saako bi ànd ak moom ci làmb yi ñu dem ñu je mu jee al nag ay saaku ceeb yooyu loolu moo ma dugal ci làmb. Euh, li nga doon gis muy daanee gars yi di ko bëree moo tax nga bëgg dugg ci làmb. voilà loolu nag moo ma neexoon. bëre nga mbapat. bëre naa mbapat waaw. bëre naa mbapat jaxaaw Fatick ak Diourbel waaw zo même Zowal sax bëre naa foofu mbapat. kon àll bi daal fi mu toll nii moom euh, rajaxe nga ko ba noppi. àll bi moom boo fa demee ne usine technique xam nañ ko bu baax surtout poids ci poids léger yi catégorie poids léger. foofu moom jël naa ay drapeau yu bari sax. lan ngay xaar pour ñëw yëngal bi Dakar Ndakaaru parce que Ndakaaru nag am na fa ay mbër yoo xam ne ay ndaanaan lañ ay champion lañ lan ngay xaar. Dakar ah, waaw am na ay ndaanaan mais gis naa ñoo xam ne tamit muy loolu dañoo am jàppale rek mais nekkuñu ay ndaanaan. am na ay ndaanaan mais am na ci ñoo xam te ne ay mbëru kii lañu. waaw dañ leen jàpp di leen pousse. walla mbër yoo xam ne dangay pousse rek mu dem loolu la. mais est-ce que est-ce que est-ce que fii defe naa ne bëreeguloo fi de arène. xanaa Bambey. Bambey waaw. ñaata combat nga fa bëre. bëre dóor waaw bëre dóor waaw. ñaata combat. def naa ko trois combats. ñaata victoire. deux victoire benn défaite. léegi nga bëgg a ñëw Dakar. waaw loolu moo des. est-ce yaa ngi entraîné bu baax parce que nii ma la gisee nii dafa mel nii. <laughs> xam nga la ñuy wax sow diis. mbaadu mooy yow. voilà exactement <laughs> ngi nii. kuy jël ay poids lourds. Hmm. jël ay poids légers. mbër yi jaaxalu ko jël naa ay poids lourd yaa ngi wàcc gaal gi Adrien Senghor yaa ngi fay dem. waaw foofu bëre naa hmm. ngi ñam gaay yi di gis gaay yi ci kii di ñam. waaw léegi lan ngay xaar pour dugg arène wala wala fi mu toll nii pareeguloo. non pare naa. ñii nii jekk nga. instant yi kay pare naa pare naa te nañ man rek la xaar mu am ko te am naa ñi may jàppale nag bu baax sax. mais fi mu toll nii fi mu toll nii bu mu ne woon bu mu ne la tànn euh, adversaire ñan nga may wax fi mu toll nii gannaaw gannaaw gannaaw bëgguloo dakaar moom. no foofu moom yaa may gën a xam kii gars yi am na ñi ma xam nag mais am na ñoo xam ne moom ñan nga ñan nga xam fi mu toll nii mu leer mu leer na sa diggante yow ak ñoom làmb la. mooy booy boobu doon bëre kii nu mu tudd Laurent Ndiago. Euh, kii nu mu tuddee Boy Plateau la ah, Boy Plateau. kooku maag moom mais Boy Plateau sax dafa mel ni am na combat de. Boy Plateau su ma juumul am na combat parce que yaakaar dégg naa dégg naa ne am na combat. Ah. waaw. ki fi toogoon tamit maag moom combat la. <laughs> kon yow li nga fiy toog yëpp sa xel maa ngi ci moom. caatu mboy mboy. waaw la. moo tax ko avant muy génn di dem. ah non dama ko doon bañ a yàqal émission bi rek looloo tax. mais loolu laa bëgg da nga woo ñëw jaxase émission bi. ñu fekk mu toog nga ne ko yee eh, plateau bi dama koy tas kaay man ak yow combat la. loolu moom combat def fu mu wax ne foofu la foofu foofu moom foofu la dëkk. waaw. yëpp am nañ ma bu baax. yëpp dugg naa ko. bu baax gis nga waa ji doon bëri euh, zone technique. teel micro bi. Mhm. gis nga waa ji doon bërëg zoo technique. waaw boo seetloo seen signature bi. mu mhm. kooku nee na bu mu ñëwee jaxaw man la ma fekk usine technique boo tapee ci kii bi di nga ko dégg mu ne ma fekk naa foofu usine technique boisine ak sivocamo mhm. ñett yooyu kese ñëw ma daan foofu te mu ngi fii di am ko combat yaakaar naa ne am na 10 combat te mais lan moo lan lan moo la téye woon boobaa ak léegi nga toog foofu nanguloo ñëw Dakar wane li nga xamante ni moo nekk ci yow. non boobu nag daal fekk nekkuma ci écrit licence individuelle laa yoroon. Hmm. ma ñëwee. micro bi. bi ma ñëwee Dakar. Hmm. boole ak benn promoteur bu dëkk Bambey. Hmm. as moo moo ma mu ne ma il faut nga nekk ci écrit. mu yóbbu jama gën wutal ma foofu écrit. loolu moo ma dugal ci écurie mais instant yi moom combat laa moom. mais fi mu toll nii daal su ma déggee ni ngay waxee yaa ngi entraîné bu baax yaa ngi récupéré. te yaa ngi yaa ngi yaa ngi contact ak gars yi ñuy dem di bëri di daan ñii dem di bëri di daanu. ah fi may contacté boo ma ñëwee nga xam ne ay poids lourds ñoo fa nekk Boy la mu ngi foofu. Pape Diame xam nga Pape Diame. waaw kooku mu ngi foofu Neymar Dionewar. Mm-hmm. Fodé Mbisaan mu ngi foofu. ñoo ñëpp ñooy contact ak ñi ñëpp ñoom Ousseynou René ñëpp foofu lañu nekk ñu ñooy bokk contact di bokk entraînement. teel micro bu baax. waaw. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo gis ngeen xale la boo xamante ni moo wàcc lutte simple bi euh, def na ay preuve am fi nga xamante ni mooy fan nga wax ca àll ba. jaxaaw ak Fatick jaxaaw siin foofu yëpp dugg na fa. promoteurs yi da ngeen ñu jàppale parce que am na xale yoo xamante nii bu ñu ñëwee euh, faw ñu ci jàpp parce que gis nañ démb Jax li nga xamante ni initiative bi mu def day jël mbëru simple boole kook ñi nga xamante ni ñooy def lutte avec frappe mbëru simple lutte avec frappe boo xoolee dem stade ba ni ñu ko def ak na mu mel rafet na trop di ko jaajëfal bu baax baax journée bi di féliciter ki nga xamante ni mooy Serigne Ndiaye di encourager ki nga xamante ni mooy ko Koba xam ne làmb noonu la gëjoon na ci làmb ñëw na euh, def na la ma waroon def mais gis nañ ni am na tuuti manquement Serigne Ndiaye daan ko di ko wax ne na gën a entraîner ndax làmb am na ci moom yaakaar te am na foo xamante ni war na faa mën a àgg euh, boo xamoon kàddu yu mujj ñoon ngay sant ngërëm leen ci ñi nga xamante ni lay jàppale ak ñi nga xamante ni nii euh, ñoo lay bu baax xanaa ñu makkrémaat waa ji yi rek. Mhm. Atoumane Sow mooy kiy defar blouse yooyu nag fii Marius kooku bi ma amee combat Bambey de maa ma ñëw mu ne ma lan nga soxla ma jàppale la ma ne ko loo ma jox baax na. Mhm. mu defal ma 217 jox ma génnewaat xaalis bu bari na ma demal nga wut oto nga dem ak maringum kooku mu ngi Marius on. Mhm. kooku waat ma ma ñëw. mu ne ma ñaata ñaata bloc lañ la jox ma ne ko ñaar mu ne ma indi ko ma dem jox ko ko mu jënd ko yépp yow kon am nga jàppale. bu baax. barke rasulaay boo laajte woon Bambey mu ne la usine technique. Bambey. Bambey séeréer. Mm-hmm. mu ne la usine technique supporteur yi muy indi fii kenn mosu koo indi. te gars yi dëkk ba la ñuy jóge daw ñëw ak ñi nekk fii. billaahi ñëpp ay dem kenn du des. Bas moom xam naa mooy président fans club bi ndax Bas a ko fi andi mbëru la moom. waaw yow kooku kooku il faut ma gërëm ko tamit bas. bas bu baax sax am bu bees de. <laughs> man maay mburam <laughs> ku ma soxla rek na ko woo. mu woo bas de. waaw ah kon kay moom na lijjanti combat bi. ah waaw bas lijjante ko. Ah, boo ko boo ko waxee di mutal la combat léegi. non dina ko lijjante ndax wax naa ak moom mu ne ma loolu garaawul demal nga def interview ba pare rek lépp dinaa ko lijjante. <laughs> kon baax na. waaw. continuer gërëm ab ay tàggatoo. waaw après ma gërëmaat ñoom Karim. Mm-hmm. Sirif Maat ak Ousseynou bii toog. Mm-hmm. moom ñoom Pape Jame. Mm-hmm. Pape Fisel kooku de doon ngente demu nag Pape. waaw ak gaa yëpp ñu dëkk village ay ñoom Aliou ñoom Alsaan Malal ma gërëm tamit waa Dalifor bu baax may leen di bu baax a baax ak waa Maris waa bergerie Xaadim Rasoor ki fa nekk ñoom mbay ñëpp maa leen di béy Ousseynou am na ku tudd Ousseynou nekk foofu kooku tamit day jàpp ci ko mbaay waaw ak Rama kooku moom ay toggal añ nag. Rama lay toggal añ. waaw añ bu neex sax Rama jabaru Fadel Diop ak Rizar Mangane ñoo yëpp maa leen di béy di leen ziare chaque jour lay ñaan may wax wutal combat wutal ko combat. waxal mbëy na nañ waaj yaa ngi ñëw. ah nañ waaj kay. nañu waaj usine technique a ngi ñëw de te xam naa bu ma moom dina métti trop sox mbaalu billaay day métti. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo xale la boo xam ni bëgg na bëre bëgg na li muy def te gëm na li muy def. Euh, di leen wax ne nag ngeen bàyyi ko xel promoteurs yi ngeen ñëwaat jàppaat ci xale yi bu baax a baax a baax a baax baax ndax xale boo xamante ne entraînement làmb la def métier am entraîné toog xaar defe naa ne mu am combat mooy li nga xamante ni moo koy gënal mu am combat mooy li nga xamante ni ni moo ko gën a encouragé mu gën a def si làmb gën a am courage entraîné mu lay jaajëfal di la jox dig daja ba kañ. Ah, xanaa ba beneen yoon rek. Ah. waaw fexe nag ma am combat yéen yëpp laay waxal. combat moom dina war a am ah. dinañ ci jàpp bu baax ah, baax na maa ngi bëggee ñi yëpp. Mhm. di leen ziare bu baax kay. di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen ba ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf.